jërëjëf mbokk mi ala kulli xaalin nag eh, tey ñu fa yéene dikk leeral lu am solo muy gént di fóot eh, gént la goog xam ne nag bari nañu muy gaar lool ñu koy laaj bari na trop incha allahu rabbi am na ci loo xam ne lu baax la ci ñenn ñi waaye am na ci loo xam ne safaan la ci ñenn ñi hmm, niñ koy faral di waxee nag mbokk mi nga xam ne daa gént di fóot yéreem ba mu set loolu it mën nay nekk lu muy sàkku di ko jot bu doon ku nekk ci coow wala ay xat-xat gént di fóot ay yéreem ba mu set loolu it mën nay tegtaleen coow dina ci mucc ci jàmm incha allahu rabbi eh, ba tey it mbokk mi nga xam daa gént di fóot ba weer loolu it bu doon lu muy sàkku dana ci jot incha allahu rabbi ala kulli xaalin nag eh, mbokk yi nga xam dañuy faral di laajte numéro yi nañ ko jël waaye ñi nga xam dañuy bëgg xam fi ñu nekk ñu fay teew loolu incha allah rabbi adresse bi moom géejawaale rek pharmacie PAI boo fa egsee laajteel Four Mat rek incha allah rabbi eh, kër gi ci kaw tali bi lañu fi bëgg a ñëw rek incha allah nañu woote ba noppi doog a ñëw waaye foofu mooy barab bi hmm, ala kulli xaalin nag eh, ñi nga xam ni gént mooy seen aajo. mën ngeen a jël numéro yi di ci envoyé vocal di wax ay gént numéro yi mooy 78 443 75 27 ba tey it ñi nga xam ne nag eh, dañoo bëgg ko leen seetal wala ñu bëgg ku leen listixaaral wala ñu am mbokk mu réer da xamatul ci moom lu mu nekk mu ngi dund wala daa faatu wala fi nekk lan moo ko fa yenn saa yi day faral di am ñoom it su leen neexee mën nañoo woote. ñam jafe-jafe nag ci wàllum kayit wala ñoo xam ne dañoo bëgg dugg ci dara xam ba xam gën na ci ñoom ndax nit ki mën ngay dugg loo xam ne gënul ci moom nit ku yàlla may mu xool ko gis na lii gënul ci yow boo ko tegee ba ci kanam mu gën ñu bàyyi loolu xel nag ci kàttanu yàlla nag moo tax loolu am solo la ndax nit doo tëb tëb dugg ci mbir nit loo dugg rek war ngay gëstu xool ba xam yàlla lim la ci wan bu gënee ci yow nga dugg bu gënul ci yow na nga bàyyi loolu tamit lu mat di bàyyi xel la ndax ab jullit noonu la war a def boo tëb tëb dugg ci dara Eh, ñi nga xam nag ñoo ajo mën nañoo jël numéro yi woote téléphone directement incha allah rabbi lu ñu xam ñu dimbal leen te yàlla rek tax ñi am jafe-jafe nag ci wàllum tawat moo xam émorite wala ndoxu siti incha allah rabbi ñooñu ku woote yittewoo garab yi rek traitement yi incha allah la def luñ ci mën yàlla ci kàttanu yàlla yàlla mën na ci def sutura wala hmm, kulli xaal nag bu dee hémorroïde wala ndoxu siti am na ci garab yu baax yoo xam ko jëfandikoo rek incha allah rabbi dees na si gis résultat eh, ndax hémorroïde moom bëri na ñum sonal lool danañ am jafe-jafe nag ci wàllum kàttan négocier rawatina góor ñi rek eh, ñi nga xam dal leen a dab bokk te nañu ko ci duwaale ndax lu ci nekk dafa am ku tële ak koo xam te dafa new kàttan ak koo xam ne dafa yomb ala kulli xaal yi mën ngeen koo yooyu mooy numéro yi nga xam ne ku ñu aaju war ci ngay woote wala ngeen dugg ci biir page profil bi rek incha allah jël appel bu ngeen bësi appel directement di ngeen am numéro bi kon ñu ngi sant mboolem ñi nga xam ne dañuy bayyi xel liggéey fun mantika nekk di ko partager rek eh, di jëm ak di abonné ñoo ñëpp ñu ngi leen sant bu baax eh, ba tey mbokk mi nga xam ne bu dee jigéen la gënt di fóot ci jigéen ñi am na ñaar façon yu mu ëpp lu mu leen dalé jigéen ji nga xam day faral di gis mbax lu ci ëpp Euh, mbaxam gi bala dik lu ci ëpp am na ci ñoo xam dañuy gént di fóot bala yàgg ñu gis mbaax ñoom seen mbaax noonu lay demee ba tey bu dee jigéen joo xam ne dafa toll ci am doom ba nga xam ne feebaru dara jot ko lu ci ëpp muy gént di fóot lu ci ëpp ëmb mën na ko bañ a gaaw yomb wa ila ëmb bi yàqu tamit lu ci ëpp ñoom it saa bun géntee di fóot balaa yàgg bun jëloon ëmb rek seen ëmb mën na faa jaare yàqu am na ñoo xam ni yàlla moo def loolu am na ci yoo xam ne nag rab moo koy waral nag ndax rab bi moo koy faral def ñenn ñi waaye am na ci ñoo xam ne yàlla mooy dogal saa bu ñu géntee yàq balaa yàgg tax nekkul lu gën ci jigéen ehm, ba tey mbokk mi nga xam dangaa gént sa yére tilim ngay wut ndox moo ko fóotee mënoo koo am loolu it nekk na aajo joo xam ne du gaaw faju waaye aajo yi faju Eh, ba tey gént di fóote ndox mu tàng ci misaal loolu it benn mën nay nekk ay xat-xat wala ay gàllankoor eh, kon mbokk mi nga xam ne moom it daa gént di fóot yéreem yéreem yi tilim ci misaal koo xam daa gént yére tilim yére tilim am na ci ñoo xam ni bàkkaar lay tegtali ci ñoom am na ci ñoo xam ni seen ay yére tilim loolu mën nay nekk cet am na ci ñoo xam ne mën nay nekk kumte kon gént yére tilim am na ci ñoo loolu lay tegtale ba tey bu dee ki nga xam ne daay gént moom it ay yéreem tilim mu ut ko koy fóotal munu koo am loolu am na ci ñoo xam ne ñu ngi nekk ci ay jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi ciy sàkku ndimbal waaye mën nañ cee bañ a gaaw a génn moo tax nekkul lu gën ci ñoom eh, ba tey it mbokk mi nga xam ne daa tawat gént di fóot ay yéreem bam set loolu lu baax la ci moom mën nay nekk tawat joo xam ni dana wér ci na sunu borom ba tey mën nay nekk njàqare yi deñ kon alaa kulli xaalin eh, ba tey ki nga xam ne nag daf faatu nag nga gént di ko fóotal ay yéreem loolu it mën nay nekk ay njéggal ci moom ak njéggal goo xam ne yàlla mën na ko defal ba tey it mën nay tegtale ñaan gu nga koy ñaanal mii nangu ci ñenn ñi alaa kulli xaalin Eh, ba tey mbokk mi nga xam ne daa gént gis ku faatu ay yëreem tilim mu bëgg koo fóot mun koo fóot walla amul ndox mu ko fóotee loolu it mën nay tegtale ay jafe-jafe yoo xam ne mu ngi koy jànkonte kon yow nga xam yaay mbokkam boo géntee loolu soo manee nga ñaanal ko ba noppi eh, sàkkul ko ay sarax yàlla sun borom jéggal ko ndax sarax Euh, lu mënut amut ci kàttanu sun borom ñaan tamit lu mënut amut kon koo xam ne gis nga lu mel noonu na ngeen ciy bàyyi xel baax a baax eh, am na ci ñoo xam nag seenu gént du soppeeku kon ñuy bàyyi xel ñenn ci nit ñi ñoom dañ leen di wan dañ koy wan ci biir gént suñ xëyee gis ko ndax ñooñu yàlla suñ borom moo leen bindee noonu waaye am na ci ñoo xam ne seenu gént faw nga wii leen ko pour ñu man ko dégg kon am na ci ñoo xam ne gént di foot ay xat-xat lay tegtale ci ñoom waaye am na ci ñoo xam ne gént di fóotee ndox mu tilim loolu it nay nekk ak jaaxle wala mbir yu taw a sotti kon loolu it lu mat di bàyyi xel la baax kon eh, gént di foot tegtal yu am solo yoo xam ne képp kum gaar rek mën nga cee bàyyi xel baax baax xool tegtal boobu la ci nga def ko kon gént di fóot am na ci ñum baax waaye am na ñoo xam ne gént di fóot ay tolof tolof la wala ay jafe-jafe la kon lu mat di bàyyi xel la incha allahu rabbi